Euh, kii di Ousmane Sonko ak euh, Diomaye Faye dinañ leen bàyyee ndégum tax na ba lu ni mel viral ñu bëree jamono jile sax ñu ngi ca cité kër gi euh, di xaarandi lu ni mel dinañ ci àttu ak suñu ay gan mais également dinañu wax ci li nga xamante ni moo gën a fës ci campagne bi ak rawatina crise bi ñuy rumbalaat diggante Macky Sall ak ki nga xamante ni moom moo di Amadou Ba ak it taxawaayu yeneen candidats yi ci li nga xamante ni moom moo di campagne bi lépp tey dinañ ko faram-fàccee ci seen biir émission 13 minutes de vérité laata ñuy sori nag ci waxtaan bi ñu dalal suñuy gan jàmm ak salaam te bàyyi leen ñoom it ñu nuyu ak yéen ma njëkkee ko ak suñu gan muy kilifa kilifa ñi nga am mbégte tey di bokk ak yow plateau bi di la nuyu te di la bàyyi nga nuyoo. oui le plaisir est partagé mbégte moomu moom foog naa fii la fii la fii la fii la fii la fii buujoo quoi <laughs> comme koy waxee quoi ci suñu jargon donc surtout ak di ko partagé ak Cheikh Ousmane Touré. qui est un frère, qui est vraiment quelqu'un que je respecte euh, sérieusement je ne mënuma sax nekk di wax ci moom tellement que voilà quoi c'est quelqu'un que je respecte en tout cas sur euh, ci li nga xamante ni moom lay def ci espace bi donc ñu ngi nuyu les plus les presque deux millions téléspectateurs ou abonnés de Sénégal 7 ak di nuyu waa Sénégal yëpp fépp fu ñu nekk ci àdduna bi donc di bëggee ñëpp di leen wax tal leen ak jàmm ci round up bi quoi yaa waaw di ndokkeel waa Sénégal yëpp di baalu ñëpp àq te di baal ñëpp àq surtout di baal ñëpp àq parce que xam naa ni man mën naa tooñ mais man sama tooñ moom foog naa Sénégal kenn rek laa fiy tooñ muy Macky Sall mais bu ko weesoo moom ñeneen ñi duma leen tooñ quoi. Mm. mais nag sénégalais yi daf ci am ñu mën a tooñ. ñoo xamante ni xam naa li may tooñ Macky tamit moo tax ñu may tooñ. <laughs> donc ñooñu daal baal naa leen ak même Macky Sall sax baal naa ko ak donc <laughs> voilà quoi donc yàlla na yàlla wàcce jàmm ci Sénégal ñu or mucc ayib. parce que tamit il faut rappeler au Sénégalais que nous ne sommes pas des haineux euh, il faut rappeler au Sénégalais que dafa ñun dafa dañu am taarix. il faut rappeler aux Sénégalais que nous sommes des personnes civilisées parce que nous avons la meilleure civilisation au monde et notre civilisation c'est la religion et c'est un pays de 95% musulmans et 5% chrétiens donc nous avons ici c'est un pays de religion donc nous nous héritons la meilleure civilisation au monde boo demee ci islam dañu la fay jàngal li nga xamante ni c'est ça la vraie nga dem ci bible bi ñu jàngal la fa tamit li nga xamante ni mooy la vraie civilisation on va pas rentrer dans les détails mais nu savons tous que nu avons hérité les deux euh, les deux livres les plus saints muy le Coran et la Bible donc euh, di wax sénégalais yi que ni euh, c'est à partir de maintenant ñu bañ a nañ leen bañ bu ñu nangu li nga xamante ni moom la ñu politique yi bëgg a def ñu koy donn nous avons été toujours un peuple démocrate et ça je l'ai toujours dit nous avons toujours été un peuple tolérant et ça je l'ai toujours dit mais aussi un peuple très ferme su fekkente ni dañ koy bëgg a këll-këllee mais la fermeté ne veut pas dire l'extrémité merci beaucoup ku ñuy bëgg a këll-këllee duñu ko nangu dinañ taxaw carrément wan ko ni ko on va pas accepter cela parce que Euh, nous avons aussi des références yoo xamante ni dafa am une héritage bu am solo buñ ñu bàyyee te loolu waruñu faillir à notre mission donc euh, yàlla yàlla may ñu ñu dugg ci koor gi ci jàmm te jeexal ko ci jàmm te yàlla may ñu élection yi ñu dugg aussi campagne bi ñu battre ko ci jàmm ak salaam le 24 mars ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu ñu xëddee ba pare sénégalais yëpp dem yitte bi nekk dem ci bureau de vote yi ku ci nekk tànn ka nga neex nga bëgg mu jiite la pour 2024 ak fii ba élection di amaat nga choisir sa candidat ci njekk ak teraanga te di ñaan les autorités compétentes ñu fexe ba lillahi wa rasuli ci barke weeru koor gi ñu fexe ba ñu am une élection paisible et surtout transparente ku gagné ñu xam ni kii moo mérité gagné kii la sénégalais yi choisir parce que fii d'habitude dañ la naan un président la majorité moo koy fal te fii président normalement président gagné gu fi 51 pour cent donc les 49 pour cent faluñu ko <coughs> on ne peut pas faire l'unanimité mais il faut que ñu nangu li nga xamante ni mooy 201 lañ compté fii fii ñu compté fi 200 ñu nangul 201 yooyu ni quand même ñoom ñoo am légitimité ñoom ñooy gérer ñëpp nangu loolu rangé wu jaa ngeen jëf Euh, kilifa fi nga dooree waxtaan bi am na solo ni nga nuyoowee également tamit am na solo parce que mm-hmm. nuyoo nga nuyoo bu am solo rappelé mm-hmm. waale tamit li nga xamante ni moom moo di wareefu ñi nga xamante ñoom ñoo euh, yilif euh, mm-hmm. Cheikh bi yow it maa mbégte di beneen yoon comme tous les mercredis di la bàyyi nga nuyoo tey dañu am gan mais kilifa. <laughs> waaw maa ngi lay fay Penda. waaw di la ziar di ziare say internautes. Mm. mooy internautes Sénégal 7 ñi nekk ci réew mi comme ñi nekk ci diaspora bi. di leen baaluwaaq di leen ñaanal bon ramadan di ñaan yàlla liñ ci def yëpp suñu borom bi nangu ko ci ay jëf yu baax di ñaan it ñu jéggal ñu ci suñuy rëkk-rëkk comme ni nga ko waxee tey dañu am gan mooy suma frère suma soppee kilifa waxtu bu nekk damay am mbégte di ko suivre rawatina nag buñ bokkee plateau li tax mooy lim symboliser c'est un artiste vrai sens du terme ndax un artiste mais bu am culture général ba bu waxee di nga xam ni kii kat duur rek ci domaine am ci la ci lay gëstu wala ci lay yëngu wala ci lay am une certaine connaissance et loolu man dama gëm ne mooy taxawaay artiste demanière général mooy ki nga xam ni duur rek boo ko joxee micro nu ko defal ma benn freestyle wala benn refrain rek fa la mu ne mais c'est un artiste complet euh, moo tax wane na ko léegi ci introduction bi am nit ku dëggu ci ay position nekk nit ko engage te engagement ci réew mi nga am engagement ci wetu population bi ngir xeexal leen seen àq ak seen yelleef yombut loolu mm-hmm. ñëpp xam nañ ko dinañ la persécuter dinañ la bunduxatal mm-hmm. dinañ la xeex dinañ la koñet sax yoo xam ne doo ko mun a wax mm-hmm. yàlla rek a xam li nit ñi di dund ci régime yi nga àndut ak ñoom bëri na bëri na loo xam ne doo ko mun a wax sax parce que après dafay nduru leneen mais c'est pas évident kon képp ku ko am rek jaajëf boo ko ko mënul wax rek bàyyi ko mu dem. ndax xamoo dëgg-dëgg lan lay dund ba des fois dina am ñenn ñu amul compréhension ñu naan mais gisuñ la mais dégguñ la xamuñ yow en réalité yow li ngay dund laan la. li ngay jànkonteel ci en terme de ci lu bëri say activité économique sa sécurité. bëri na bëri na bëri na donc waxtu bu nekk jaajëf boobu lañ leen ameel waxtu buñ daje géen jàpp nañ ne war nañ leen ko wax te ñaan yàlla waxtaan bi nag nekk njëriñ ñal sénégalais te xam naa ne dana nekk njëriñ incha allah jërëjëf kilifa chef bi fu ñu koy dooree tey euh, bokk na ci euh, ponk yi gën a fës ci mhm. actualité bi mu ñeel li nga xamante ni euh, moo di libération wu Ousmane Sonko ak kii di Bassirou Diomaye Faye rappelé que ni nag ginnaaw ba ñu validé loi d'amnistie bi foofee ci mhm. assemblée xaarandi ñu promulguer ko euh, su ko defee rek ñu mhm. daal di koy gis ci li nga xamante ni moom moo di le journal officiel ñu mën a jëm ci li nga xamante ni moom moo di suite bi suite bi nag bokk na ci tey jii ku mel ni libération Ousmane Sonko ak kii di Diomaye Faye magnifié par certains tout à l'heure ñu ngi gis ab tweet bi nga xamante ne Alioune Tine def na ko ci comme pour dire que ni moom jàpp na ni kenn waratul euh, am jiixi jaaxa ci président Macky Sall tey jii ni mu bëggee woote jàmm euh, ba tax ñu jëm ci ay libération ginnaaw bañ ko tàmbalee ak libération yenn ci ay détenus waaw euh, info bi ñun ñëpp ñoo gisandoo ki def tweet bi ah. Mm-hmm. Uh, li ñuy li olof di wax rek naar bu ndaw lim lu mu lu mu wax rek ca xayma wala ko déggee mm. xam nañ ni lépp lu jëm ci nguur gi xibaar yim la ciy jox souvent mm. source vérifiée la dangay xam ne direct pale ba la génne. Mm-hmm. muy Madiambal Diagne. waaw mm-hmm. information bi nag man jàpp naa ne sax du moom moo ko waroon génne. lu état bi am na ay canal officiel. Mm. Ousmane Sonko du n'importe qui. ni si lañ ko génnee lim effacé dafa bëri. voix officielle maam canaux officieux wu état bi ñoo ñu ko waroon yëgal. mais moom même remaniement bi sax ci moom lañ ko ah, donc yooyu bokk na ci man yi may déplorer. nguur gi en terme de communication avec les sénégalais du xamuñu fi ñu ko war a teg lii normalement état bi waroon na site internet am bindal ñu ko wala communiquer wala communiqué de presse wala wala wala canaux yu bëri am na ko am des gens yuñ jël di leen fay. Mm-hmm. ngir ñuy waxal la état bi. Mm-hmm. kon ñooñu ñooñu war a yëgal xibaar yu mel nii. mais mhm. pas ku mel ne Madiambal Diagne Madiambal c'est un journaliste officiellement amul benn responsabilité ci état. Mhm. à part daf leen di jàppale. mais amul benn maanaam du représentant officiel état bi donc loolu c'est à léegi nag génn Ousmane Sonko moom rumeur bee ngi daw depuis quelques jours man depuis dimanche jot naa ay écho ñi doon wax lundi ñi doon wax mardi bu mu ci mënti doon liñ bëgg mooy mu génn kaso ndax jàpp nañ ne place am du kaso ba. Mm-hmm. à raison liñ ko toppoon lépp tey dañ na. Mm-hmm. tey Sonko bis bu mu fanaanaat de plus ci kaso bi tooñeef lay doon. Mm-hmm. mooy détention maanaam détention arbitraire la. dem tamit bi dañ na il redevient éligible l' affaire Mame Mbaye dañ na. chef d'accusation yi ko procureur inculpé woon dañ na mhm. loo ko téye bis de plus ci kaso bi détention arbitraire mhm. bàyyil jàmbur mu génn jomaay candidat la dafa war a bénéficier des même droits que les dix huit autres candidats mooy mën di toog RTS di utiliser temps d'antenne am di battre campagne mhm. kon ñooñu seen place du prison ginnaaw loolu nag tànk bi président Macky Sall taxawee man je salue mm. sincèrement yéex na waaye comme on dit il n'est jamais tard pour bien fair les choses dem na ba comprendre ni ñi mu jàppee woon ay adversaire wala ay ennemis am du ñooñu loolu lañ ko yàgg wax bi nit ñi fogee ni dañ ko contre dañuy xeex nguuram dañuy dénoncer nguuram boobu lii rek lañ ko doon wax mooy fi nga focus foog ni ñii ñooy say ennemi duñ say ennemi loolu comprendre na ko tardivement nag mais loolu lañ ko yàgg wax man j'encourage man dama gëm ne Macky Sall day dem man ma depuis bi mu reporté élection bi toog toog nañ fi plusieurs fois moo wax la man dama gëm Macky Sall day dem. merci toogu fi day dem. j'aime bien quand on parle comme ça. te munu fi toogit mm. day dem léegi nag nit kooku day dem tàllal na la loxo wax naa ko man duma biñ ko waree dénoncé dénoncé nañ ko. Mhm. biñ ko waree contre contre nañ ko biñ ko mhm. waree combattre combattre nañ ko. Mhm. du nag benn jusqu'au boutiste boo xam ni damay dóor sama bopp ci miir bi réew mi ñëpp perte. buñ bëggee sës Macky Sall ci miir bi comme fi nekkoon réew mi ñëppay perte. tout à fait. tout le monde perd bu ñëpp perte nag à quoi ça va servir combat ak lutte yi nit ñi mëne ak sacrifice yi nit ñi def amul sens les gens se sont battus ont été emprisonnés ont été séquestrés torturés exilés pour réew mi baax calomnier pour réew mi baax bu réew mi mënul baax amul sens des fois nit ñi foog ñuy dem ak maanaam open mind nit ki mi ngi doo mur quand président de la république sort pour dire publiquement buñ jubawul daa d'autres force bien organisées président bu demee bay maanaam di dem à la di faire allusion à une coup nu mu tudd coup d'état militaire loolu y problème loolu nag bu amee ñi mën woon combat bi taxaw yóbbu ko ci rapport de force bi ñooy am intelligence jël waa ji mu génn ñu jël réew mi defar ko. Mm-hmm. ñun ñëpp liñ bëgg mooy defar réew. daal yaa ngi saluer bi bi nga xamante ni. non à pour cent et je à aller encore plus loin mooy ñi deele na leen indemniser balaay dem du dara ci état bi. man dama xëy encouragé mu dem jusqu'au bout. réew nguur goo xam ne reconnaître woon sax ni am na ñu dee. bu demee ba reconnaître ne am na ñu dee ba paree leen dédommagé loolu c'est à saluer Penda bakken du dekki bakken amul njëg waaye bëri na ñu porté woon seeni espoir ci seeni doom yu génn àddina diina sax dala ko sant loolu boo tegee dara seen loxo dana réconforter nit ki te du dara ci état bi donc man je l'encourage à aller encore plus loin ba sax lépp loo xam ne prérogative am may na ko muy réforme urgent mun na ko def bu laay dem Macky il n'est plus demandeur de rien du tout na ñeme dem jusqu'au bout def li muy def dem yoon dinañu ñëw léegi dans le fond par rapport ak li nga xamante ni seen libération mën na ko entraîner sur le plan politique sachant que ni door nañ campagne bi mais kilifa sa appréciation yow it ci par rapport ak libération Sonko ak Diomaye